Interpol Interpol mooy ñi nga xamante ne mooy polisu àddina bi ni mu ko waxee àddina bi yëpp noonu lañu ko waxee nit ñi ñu ngi tàmbali mooy ñi nga xamante ne dox jàmm taxul ñuy dox ñu ngi tàmbalee jël naan am na ay test yoo xamante ne bu ñu leen ko defalee dama ne Sénégal ay kàngam ñoo wër faj faj bi kàngam yooyu wut nañ yeneen kàngam yu leen ci dimbale képp ku bëgg dimbali ñu si na nga ñëw xam nañu fi ñu dimbale woo nañu bunt yi tëjuwuñu Interpol nag gis na ni mu ko gisee fii noonu la ko gisee feneen ba tax mu ciy wax nee nañ am na benn produit di ñaa ngi dugg naan dañ koy mën a testé lii yónnee nañ ko directeur yi ñu ngi ko yónnee médecin chef région gouverneur dinañ ko jot police moo ñu ko yónnee police su Sénégal parce que boobu ci Interpol la bokk produit bi mu ngi tudd Unigold TM HIV dañu bëgg a jaar ci affaire sida di nax nit ñi loolu nag ñun duñu ko seetaan te am na ñoo xamante ne dinañu ko fajal wax nañu fii ba wax ki nga xamante ne ci ni mu koy jaayee mu ngi tudd Trinity Biotech def na ci ay date de péremption ak yépp wax ne garab gi baax na garab gi baaxul Sénégal nag dafa am kuréel boo xamante ne dañuy wax ne dañuy xeex garab yu baaxul yi ñooñu dañu ci jublu loolu mooy waral ne du rek nekk waa santé dina nekk ñeneen ñoo xam ne force de défense et de sécurité gouverneurs yi yeneen ministères sectoriels yépp secrétaire général du gouvernement ñëpp dëgg nañ ci parce que nag bu ñuy liggéey nañu am xel ne am na ñoo xam ne ñu ngi yàq boobu lii laa bëggoon wax. dégg ngeen fu nekk ñuy wax artémisia ne jëlee nañ ko ci beneen dëkk indi ko naam ñu ngi gërëm di doolee gërëm di sant suñu président de la république son excellence parce que. xëy na naataangoom jox na ko ko waaye ba mu ñëwee daf ko teg ci loxo ministère de la sant action sociale bi nga xamante ne moo yor li nga xamante ne mooy faj bii nag ma leen di war xob bii waxoon naa la ko mu ngi ci tundu Sénégal yi am nañu ko même bu bëriwulee am nañu ko lii nag dafa bëri ay façon ni mu amee façon bi faj noonu la amee façon bi nga xamante ne du ko faj garab gi xam nañ ko artémisia bi ngeen seetloo bi nga xamante ne niwaakin génne nañ ko at yi ci tegu moom lañu dugal mais ci form yi artémisinine pour wax ne garab goo gis tey mu jóge fu mun munti dëkk ci askan wi ci fi askan wi dëkk fi nga xamante li ñu naan garab soriwul boo demee nit sax am na ko fleur ci këram te xamu ko artémisinine boobu ba ñu ko commencé paludisme mooy sibiru ci lañu gis ne sibiru bi mu ngi gën a wal te du faj garab gi doon koon faj moo tax ñu dindi ko te bu ñu koy dindi dañu koy ànd ak ab décret décret yëpp a ngi nii ku fi nekk ministre de la santé xam nga ko ñëpp xam nañ ko moo tax dañ koy tegaat ci kaw waxuñu ne garab gi jógee Madagascar baaxul parce que scientifique boo gis du ne baax na du ne baaxul tant que saytu ko mooy li ñuy wax essai thérapeutique mu ngi ci ay loxo yu leer am na ñoo xamante ne ñu ngi ci commencé di wax mais dañuy ñaan ñëpp bu fekkee ay kàngam lañ ci affaire santé ci affaire wér-gu-yaram ñu ñëw ñu leen koy ñaan ñu ñëw ànd ak fajkat yi fajkat day ànd ak ay fajkat loolu buggoon nañ ko xam parce que wax nañ ne lépp loo xamante ne mu ngi ci direction de la pharmacie et du médicament ministre la santé jël na ko jox ko ko parce que li ko wër moom mooy commission du médicament mooy commission de la pharmacovigilance tey garab dina baax États-Unis xam ne baax na comme ñu ñoom lañ jël ay référence yaakaar na ne lépp lu fa jóge rek baax na lépp lu fi ñëw fii commission yooyu ñu fi tegu fii ma taxaw nii boo jàddee nii si rek di nga gis li ñuy wax commission comité éthique comité boobu kenn def recherche ak koo munti tollu nag la ak kàngam boo munti doon ba boo ñëwee du ñu saytu li ngay def parce que dëkk bi nag dëkku droit la dëkku yoon la du ñu bàyyi lu neex nit def lu neex nit jox keneen. concernant les définitions dama ne feebar boo gis ci àddina am na définition kaa communautaire kaa importé yaa ngay dégg ak cas contact ak bu mu ci munti doon feebar bu ñëw ci àddina bi. organisation mondiale de la santé bi nga xamante ne mooy mbootaay xeex xeet yi nga xamante ne moo yor wàllu wér-gu-yaram dañu koy jox awale ko dans la diplomatie sénégalaise ñu étudier ko ak suñu représentant résident OMS bi nga xam ne moo nekk fii ci Sénégal définition yi mboolem waa kër docteur mboolem association professionnelle d'infirmiers de sages-femmes de médecins d'hygiène koo xalaat ba ñu duggee ci weeru janvier le 22 janvier balaa minuit ku nekk jot na ko donc lu ñu ciy changé dañu koy changé ànd ci organisation mondiale de la santé Sénégal nag dafa nekk dëkk boo xam ne ñun ñëpp dañoo mën a jàng macha allah mais njàng moom yëpp dañ ko boole def ko say ànd ñun ñëkk depp benn. loolu daal buggoon na nekk ci la ngeen xam ne moom laa leen koy wax bëgg nag teere ci lii nga xam ne ñëpp dañoo topp communauté communauté communauté man mi lay wax ci communauté laa jóge communauté ba ma jógee bokkul ak communauté bi nga xamante ne journaliste bi foofu la jógee man séeréer laa xëy na moom joolaa la keneen ki balant la bëgguma lim lépp lu ci nekk boo fa demee gox ba am na fa kilifa def nañ ko ñun ministère de la santé nekk na ci fukki région yi ak ñeent loolu buggoon nañ ko wax du lu ñuy forcé mais dëkk bu ci nekk danañ ko def ca làkk ba muy làkk danañ ko wax ci anam ya mu war a amee kenn du jógee dakaar dem ba Casamance naan yaa ngi fay wax loo xamante ne engagement communautaire la wala affaire communauté communauté boo gis assemblement boo gis am na fa koo xamante moo fay kilifa man mii ngeen di gis ñemoo ma dugg ci benn communauté te ànduma acteur communautaire ya ànduma ak dëkk ba ànduma ak dëkk ba donc Sénégal may teerale foofu ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di waxaat na ñëpp gën a góorgóorlu te xam ne mbas mi wóoraguñu ndax xamuñu virus bi wóoraguñu ndax gannaaw suba lay jeex wóoraguñu ndax ci fukki weer lay jeex wóoraguñu ku jàng littérature grippe xam ne am na grippe yu nekk ci àddina bi defoon fi lu toll ñaar wala ñetti at bu nekkul grippe choléra bi nga xam ne moom la ñu gën a miin toog na fi Sénégal dakaar fii ma taxaw de 2005 à 2010 maa ngi leen di gërëm di leen di sant lii lépp dinañ ko def nag dina delluwaat mu ngi ci surtout ministère de la santé acteur communautaires yi ñu ngi ci médecin chef de région ñu ngi si médecin chef district ñu ngi si infirmier chef de poste ma ne ku bëgg a jàppale nanga dem jàppale ñooñu parce que soxla nañ ku leen jàppale. di wax ne tamit continuité des soins ñàkk xale yi boo nee sama doom duma ko yóbbu ñu ñàkk ko waaye fièvre jaune mu ngi ci dëkk boo xam ne soriwuñu poliomyélite mu ngi ci dëkk boo xam ne soriwuñu te ñun loolu daan nañ ko fii ci Sénégal ma ne dëgg la war a ñoo tiit waaye war a ñoo tiit di daw gaynde ba mbëkk mi loolu tamit bëggoon naa vraiment ñu xam ko di jeexale nag masque bi ma fomp tuuti ndax masque bi yaakaar na ne bu ñu ko solee rek pare nañ ci déedéet lii moo tudd masque chirurgical mboolem ñun ñii yéen ñëpp gis naa ngeen takk ko bu ngeen ko takkee ñetti waxtu yu nekk da ngeen koy changé mais gis nañ ne yàq bi bëri na ci biir yàq boobu am na benn video buy circulé bu wane ne am na ñoo xamante ne ñu ngi koy for di ko jéem a raxasaat di ko jéem a jaayaat loolu baaxul boo xamante ne dafa nekk ci ne ñun suñ tailleur yi ñoo koy ñaw gàcce ngaa la ma suñ tailleur yi de waaye tissu bi nañ def ndànk parce que tissu bi tamit lu ci gën a bari tissu bi defaraguñ ko fii Sénégal gaa artisan yi gàcce ngaa la ma ñu ngi koy defar waaye nag buñ ci deful ndànk kuñ ne masque tissu yooyu mooy piis yi piis yi boo ko solee dañ war nga si am ñaar ba ñett ndax di ko mën a raxas di ko mën a fóot raxas sax laa ko tudd ndax boo ko fóotee nii man mi may fóotee jàpp ko fete ko fete yu metti dafay yàqu parce que li ci biir bi tax wàllante bi du am moom mooy tudd ton mooy li nga xamante yéen góor ñi da ngeen koy faral def seen suufu daami nay loolu boo ko fetee ku si nekk sa soxna seen bu ko fetee mu yàqu donc nañu dégg li ñuy wax bu baax sol masque bi bu fekkee man damay sol lu ne dama koy summi daal di fomp def nii seet fi weñ gi nekk nii masque dafa am nu ñu koy sole daal koy dugal ci sama nopp ba mu leer ma ne dugal naa ko ma defaat nii te bañ koy laal laal yu ëpp ëpp yi gis naa sax ay waa ko docteur di ko def di wax muy wadd boo ko xësee def nii ba def ko nii xam nga laal naa fii ci suuf benn yoon ma defaat nii lunette yi boo gisee leelee nga sol ko mu mel ni dangaa nooy ci kaw lunette bi looloo koy def ni nga sole maski moo baaxul nga jël lunette bi daal di koy teg fexe mu nekk nii ci kawam yéen gis waaw vraiment loolu bëggoon naa ko wax di leen di gërëm di leen di sant wasalaam yal nañu yàlla may dal ba nga xamante ne dañu mën a jële fi mbas mi ndax stratégie yi nga xamante ne teg nañ ko fii ci Sénégal bu ñu mayee fi ak ay diir rek yaakaar naa bu si ñëpp àndee ñëpp comprendre mbas mi dina fi génn wala bu fi nekkee itam dootuñu sonal parce que suñu mag yi nga xamante ne ñu ngi ñuy bàyyi di dem mag jar naa bàyyi ci dëkk wasalaam